kon nag ñun taalibe Seydou Hadji Malick gi dañu am lu ñu metti lool am lu ñu naqari lool te jóge ci mbokk taalibe woon lañ koy tudde fii mu toll taalibe woon ñu koy wax Iran Ndaw ndax dafa wax ni Tiwaawan fu mu mës dem ci àdduna danaan man Tiwaawan laa am daaray Sëriñ Babacar Si maa ko yor Tiwaawan ñooy sama kilifa mu toog ci conférence yàlla dogal na ni ki organisé woon conférence bi mu ngi nii toog muy oustaz kër Dieye bii toog yéen ñëpp seetaan ngeen vidéo mu ñëw ca conférence ba wax ni nettali fa histoire boo xam ne la mu cay nettali dara wóoru ko ci ndax xamu ca dara ba mu nettalee ba àggal mu ni man nag Iran Ndaw Tiwaawan moomu ñu ma Tiwaawan nenuñu ma mën dëgg rek laa bëgg mu mel ni ci kàddoom soo ko déggee da nga naan kon Tiwaawan nekkatuñ ci dëgg te Tiwaawan njëkk moom baayam ak maamam Tiwaawan ci dëgg lañ mës a nekk ba ilaa yawmina haza Tiwaawan ci dëgg la ñu nekk ba yawmal qiyaam Tiwaawan ci dëgg la ñu nekk kon mu ni moom dëgg la bëgg Tiwaawan nenuñu ma Tiwaawan moomuñu ma kon dëgg laa bëgg mooy yil mooy Tiwaawan nekkuñ ci dëgg beneen bi ci des soo dégloo ay waxam lu mat at wala ñaari at day wax di dendale suñuy kilifa moo xam ci rajo bi la koy def moo xam ci télévision bi la koy def moo xam ci ay site internet la koy def ñun ñii toog fii nag di ay taalibe Tiwaawan mbooloo mii ngeen seen quatorze régions yi senegal yëpp fu ci nekk am nañ fa ay membres yu ko ci ñun doon rek taalibe Seydul Xaaji Maalik du ñu saaga du ñu xaste du ñu xuloo waaye mayetuñu Iran Ndaw moom Iran Ndaw mayetuñ mu toog ci benn plateau télé tudd njaboot Seydul Xaaji Maalik wala mu tudd Tiwaawan wax ko loo xam ne waru ko koo wax te bu fekkente ni am na jom sax warutoo tudd Tiwaawan ndax moo ni Tiwaawan nenuñu ma yilifuñ ma di tëbaka dal xar moom daf ko lekk ni nem kon nag taalibe yi nga xam ni ñooy organiser seeni bis daan ko jox Iran Ndaw ngir yàlla ak yi sëñ Babacar Si ngir yàllaak ak Seydil Xaaji Malick ngir yàllaak ak fu mosaan a taxaw ñu yëg ni kii kat njabootu Tiwaawan la ñu koy ziyaar ci turu Tiwaawan ñi ngi leen di wax ni amul benn taalibe buy jëlati bisam wala programme am wala lu mu mënti doon da ca boole Iran Ndaw Iran Ndaw dootul def sunu ay programme taalibe Seydil Xaaji Malick nag ku bokk ci kër gi dëgër bopp ba jël sa programme jox Iran Ndaw wala nga boole ca Iran Ndaw incha allah daañu avertir ñi ñu war a avertir ñépp ci kilifa diine yee kilifa aada yi programme boobu du am bu dee fii ci Thiès ak fudul Thiès nag ndax fépp ci Sénégal ñun ñi ña nga fa suñuy représentant ña nga fa programme boobu du am ku bokkul nag ci kër gi bokkoo ci tariixa bi bokkoo ci Seydil Hadji malik nga jël sa programme jox Iran Ndaw yaa xam waaye dinañu am ñu teew déglu ko bu waxee ba fero su Tiwaawan walla mu fero su njabootu Seydil Hadji malik programme boobu foofa lay yem ni ko Babacar waxe képp koy noyyee kër Seydil Hadji Malick na nga jël Iran Ndaw sànni ko fële ca xaj na nga ko jël sànni ca xaj ku ci dëgër bopp nag loola ca fekk yaa ko teg sa bopp ñun ci waawoon la am te suñuy maam ba fii ci waawoon la ñuy sagoo ci waawoon la ñuy noyyee xaj bu jógee ci waawoon sax suñu sëriñ la foofu nag lañu ko tegoon waaye lañu ko joxoon yaakaar nañ ni méritoowu ko moo toog publiquement ne ci waawoon nenu ñu nenu ko moom ñun da ci waawoon moo ñu nen mm-hmm. moo nen suñuy baay moo nen suñuy maam ta insha Allah mo ñuy nen nen suñuy njabot ndax ci waawor lañu am le serigne adi touré waxoon dafa na mom moko ko ni meew sa meew mi lañu soxla wuñu meewum kenen ndax meewum kenen fenen ci ñun fay forox meewum seydi haji malik mi rek lañu soxla am nañ fa 1 an di jàng ñoo gis erandaw jël jëwëm bi ko ci suuf kon walu juma yoy mu doon wax ak tourner wat nak alquranul karim gi mi firi ci tele bi nga xamante ni ci xelam rek la koy teg kon daal ñun bis ni ki tey comme ni ko Serigne Mouhamad may waxee ak alhaaj Babacar Dieng Dieng ak euh, sunu mbokk mi alhaaji ñaa euh, ñu ngi taxaw mayutun era ndaw mu waxati dara ba jëmale ko Tiwaawan bu amee la muy wax na ko jëmale Saalum ga mu dëkk wala mu jëmale ko ci baayam mi nga xamante ni nee na moo tax ñu xam ko waaye kanta wax jëmale ko ci maam Cheikh El Hadj si wala njabootam mayeetuñ ko ko ci côté yépp nag bu nekkee ci cadre ñu baal ñu ci kàddu gi ci cadre violence ñu ngi ca ci cadre xam-xam xam sax amu ko ñu ngi ca lu mu indi rek dina ko fi fekk parce que kër gi moom bu foo dugg moo xam ci wàllu xam-xam la am na ñu lay tontu ci beneen côté bi tamit am na ñu lay tontu raison bu mu ko mën a defee ci Sénégal am na ñu fa teew ngir lan erando bu darape rek ñu dérapé ci euh, ci kawam na ko ñëpp bàyyi xel. képp koo xamante ni yaa ngi woote te bokkoo ci kër gi te bëgg jàmm na bàyyi xel ni na day nalaw te yàlla rëbb na képp ku ko koy